ñi nga xamante ne ñoo war a bokk ci élection yi nekkoon ganu grand oral docteur Abdourahmane Diouf wax nay tamit ci ñetteelu mandat bi nga xamante ne dafa jàpp ni njiitu réew mi bu ko namee def moom réew mi ci guute la jëm ak fitna gi mu njort ni kon kenn mënu ko ci dàkk Mbakiou Faye dàkkul politique Vox Populi di xam ne ni kon ki yor lépp lu jëm ci doxalinu juma Masalikul Jinaan dafa mel ni ku nekkoon ci ab meeting politique ci samedi gi ba mu doon dalal njiitu réew mi Macky Sall ne li nga def moom ngir communauté mouride bi sëriñ bi dina la ko fay moo tax sax njiitu réew mi daal yokk loxo bi Le Soleil yéene kaay di xam ne ni li mu digle ci kanamu kilifa gi mooy tabaxal leen ab poste de santé waaye tamit ak ci ab morgue bu mucc ayib moo tax les échos laas naka noone 24 heures dañoo jàpp ni njiitu réew mi Macky Sall moom jamono ji dafa nekk di draguer maanaam di xool nu muy def ba muridi ci boppam daal di koy bàyyi xel moo waral nag yile digle Macky Sall yamul ci digle ndax am na li muy mbébét bis bi xam le ni njiitu réew mi moom mu ngi yootu ñetteelu mandat ñ sukkandiku nag ci waxtaan wi mu sekk ak mu yëkkati ci kanamu sëriñ Muntaxa mën nañoo njort ni kon njiitu réew mi moom ay gëtam yépp ci ñetteelu mandat la ko def yéenekaay bis bi di fasal kàddu yu njiitu réew mi yëkkati nekkoon liggéeyam pareegul ci biir yéenekaay bi sax ñu jox kàdduk Ismaïla Madior Fall xam le ni loolu moom njiitu réew mi kese moo war a àddu ndaxam dina def ñetteelu mandat am déet l'exclusif xam le ni njiitu réew mi nee na pareeguma ay chantier ak li mu mbëbët ci réew mi yéenekaay bi di xam le ne kon njiitu réew mi moom daf ko namm yeggali ci biir mi quotidien Assane réew mi ni liggéey moom ci bopp réew du musa pare moo tax jamono ji suñu naatango bi di ko méngale sax ak njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade li mu namoon a def ak ñetteelub mandat xëy na sax ngir yegg ca moo tax njiitu réew mi Macky Sall daa di gën a dooleel ñi nga xamante ne ñooy takk der yi le quotidien yéene kaay di xam le ni moom Macky Sall yokk na seen ndàmpaay jëlee ko ci 75 000 francs yóbbu ko ba ci 400 000 francs mu nekk ay doléance yi nga xamante ne fajal na ko ñii di takk der yi waaye jàngalekat yi ñoom seen doléance daanaka fajoogul moo tax Sud Quotidien di kat xamante ne moo lëmbee njàng mi ak njàngale mi di xam ne ni ñett ci ay bis képp moo des ngir examen CFEE yi ak entrant sixième te jamono ji diggante état bi ak syndicalistes yi ñu ngi ci prolongation ci seen xeex bu métti tey jii sax ñu ngi waajal ab ndaje ci ministère bu ñu dénk wàllu fonction publique ngir ut ci ab saafara saafara moom boo moytul du gaaw a am ndax enquête yéene kaay dafa xam ni ñàkk déggoo dëgg ak pëccoxo la ñu nemmeeku ci document bi nga xamante ne ñaari pàcc yi ñoo ko xaatim te loolee neexul benn yoon gouvernement bi ci boppam ba tax mu ci àddu liggéey bi xew ci hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh ndax yoon tàmbale na rëkk ndigg ñu ñu njort ni kon laale nañu ci mbir mi bokk na ci bu ñu sukkandekoo ci laas benn sage femme naka noone ab aide infirmière mi nga xamante ne dañ leen naa yóbbu gardaawi ca Tiwaawan l'observateur xëy dell delluwaat ca Tiwaawan di ñu nettali naka la lakk-lakk bi amee ak ñu fa dund ni jafe-jafe tolluwaayu njaboot ji gannaaw kon ba ñu roppee niw liir yooyu ni ki démb ca cimetière bu Tiwaawan Tiwaawan fa njiitu mi nekkee keroog ba muy jóge foofu dafa mel ni waral njiitu réew mi saax-saaxee tukkiyam boobu daal di dellu si ci ndakaaru le vrai journal moo ni samp laaj laaj yu ñu waroon samp Seydina Omar Touré ci dossier Sweet Beauté moom dootul am li ko waral libération di xam ne ni kon am na ci rebondissement ndax procureur ci boppam moo lank ndaare ne duñu déglu ki nga xamante ne moom mooy capitaine ba woon ci audition yi di woy nag daal dinañuy déglu lu toll ci ñetti masseuse yi nga xamante ne ñu ngi doon liggéey ca Sweet Beauté waaye bu ñu ba tey ci libération ñooñee dafa ni ñu ngi tegi tuuma yi ci ndoddu Ndiaye ndax dëggal nañ ko ci kàdduwam weddi lépp li nga xamante ne Adji Sarr waxoon na ko Dakar Times wax na ci njeexital yi nga xamante ne moom la guerre bi am ca Ukraine di def ci déndub Afrique muy fësal ni suñu réew moom daanaka ci téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom ya ci fariñ bi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo mu ngi jóge diggante Russie ak Ukraine moo tax ñun moom ci jafe-jafe la ñu jëm ci ay fan yi ñu dëgmal Sadio Mané moom ci Bayern de Munich la jëm Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk fësal ni ab contrat bu ñetti at moo ko fay xaar agent bu Sadio Mané bi ci boppam sekk na ko dirigeant club allemand bi kon tàggatoo ma ngay xeeñ diggante Sadio Mané ak Liverpool noonee la ko stade quotidien daal di fësale yéenekaay bi dikkaat ci raaya bi nga xamante ne Real de Madrid amati na ko gannaaw ndam li mu am ci final Ligue des champions ci digganteem ak Liverpool diggante Ama Baldé ak Lac de Guiers moom combat boobu du musa am Jules balde di magu Ama Baldé moo ni waatee ci yéenekaay sunu làmba société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de